mais peut-être avant anniversaire ñu ñëw ci porté disparu Apulaay donc porté disparu euh, Nafisatou Sy wan ñu photom voilà Nafisatou Sy euh, donc elle a 24 ans euh, donc dafa réer dafa réer moom sa maman Soda Fall ak euh, baayam di Abdoulaye Sy ñu ngi koy rekk daal di wër comico la rek daal di euh, dëkk numéro téléphone am euh, di 77 565 17 95 77 567 17 95 wala numéro am loolu moom mooy numéro numéro wayjuram bu bu góor di 77 567 17 95 way wayjuram bu jigéen 77 879 47 donc moom Nafisatou Sy aussi waxuñu kañ la réer nag euh, donc gisuñu ko ci message bi waaye ay wayjuram ñu ngi koy rek euh, daal di euh, wër donc moom Nafisatou Apulaay nga ne donc 24 ans la daal di am dafa réer kon ay mbokkam ca comico la daal di rek dëkk wayjuram bu jigéen di Soda Fall ak wayjuram bu góor di Ablaye Si ñu ngi koy rek daal di wër nanañ ko rek ñu dimbali leen ci ñu kon gisal leen seen doom bi nga xamante ni donc ay fan a ngi nii kon gisuñu ko ñu ñëw ci anniversaire yi euh, léegi euh, Apoulaye on va souhaiter un joyeux anniversaire à Dié Als Sow yaakaar noonu la Dié Als Sow madame Diallo c'est de la part de toute la famille donc ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire happy birthday euh, Milena Milena Sarr xale baax xale disponible euh, rakk Mounas euh, Mounas sama rakk la donc moom it sama rakk la kon Milena Sarr euh, joyeux anniversaire à toi ma puce gudd fan ak wér lañ lay ñaanal joyeux anniversaire à Guèye Génération Futur Média donc Guèye Génération Futur Média borom le 26 on te souhaite un joyeux anniversaire talibé donc Samba talibé Bomba voilà donc di ko souhaiter un joyeux anniversaire de la part de tout le groupe Futur Média joyeux anniversaire à notre euh, sœur Boyba euh, donc joyeux anniversaire c'est de la part de toute la famille happy birthday Pape euh, Cheikh Tidiane Diop c'est de la part de toute la famille également ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire joyeux anniversaire à bébé Mouhamed Dieng Diek Badjen Mami Badjen Djoufa et toute la famille Diop te souhaite un joyeux anniversaire bébé Mouhamed joyeux anniversaire à Mam Mor Ngom borom suñu tailleur bi enjoy your day euh, euh, grand bi euh, donc c'est de la part de tous tes amis joyeux anniversaire à Cheikh donc Abdou Lahat Mbacké Diallo longue vie et beaucoup de bonheur c'est de la part de ta mère Marietou Thiam Joyeux anniversaire à Ndeye Marème fille de Ndiaye Meng et Baba Bari donc son tata et Baba Bari donc sa tant tante préférée Nogay Meng <laughs> moo lay souhaité un joyeux joyeux anniversaire. joyeux anniversaire à Nabou Cham c'est de la part de Nabou Faye euh, moo les souhaité un joyeux anniversaire joyeux anniversaire à ma femme Seck Demba. donc euh, loolu lañu ko bind joyeux anniversaire à ma femme Seck Demba donc je sais pas si ça suit Apoulaye donc euh, Seck Demba joyeux anniversaire. joyeux anniversaire à Nabou coiffeuse Guinaw Rail donc euh, moo ñu ngi lay souhaité un joyeux anniversaire. Happy birthday à ma fille chérie Marie Dia, c'est de la part de Adama Seck. Bon anniversaire à Dieynaba, santé, bonheur et prospérité, réussite totale dans tes entreprises et beaucoup de bonheur. Happy birthday Omar Sy, c'est de la part de Fatou Kandé, moom ma nga ca Tambacounda. Anta Lay euh, Mbaye, c'est de la part de euh, la grande sœur Mbayang. Joyeux anniversaire à toi aussi euh, mon ami d'enfance Daba Madame Ngom. Joyeux anniversaire à Aïssatou Sissé, moom ma nga ca Kaolack, c'est de la part de toute la famille. Joyeux anniversaire à Zalmeng Borom Jamalay, c'est de la part euh, de tout le personnel du groupe Futur Média. Ali Ndiaye, joyeux anniversaire, c'est de la part de papa Ibou sa maman Oumou Ndiaye, euh, ñoom ña nga ca Italie. Joyeux anniversaire à mon bébé Seydou Safia, c'est de la part de sa maman, moom ma ca Grand Dakar. Joyeux anniversaire à Serigne Saliou Meng c'est la part de ton papa ta maman et de toute la famille ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire. joyeux la part de Garmi Thiam on lay souhaiter également un joyeux anniversaire. happy birthday à mon mari Aldiouma c'est de la fa la part de ta femme maman et de tes enfants. Un joyeux anniversaire à ma fille Ndeye Sokhna Seck Ndeye Sokhna Seck voilà euh, Ndeye Sokhna Seck euh, euh, donc Apoulaye. mooy photo bu mu la envoyé sànq nday soxna euh, Seck non euh, beneen bi nday voilà soxna Seck joyeux anniversaire ma fille nday soxna Seck depuis euh, Wagu Ñaay xale baax yaru bëgg yaayam ça c'est de la part de tata Binta Binta boobu moom ma nga ca Saint-Louis sama yaay ji maa ngi koy nuyu bu baax a baax madame Lo depuis Rufisque madame Lo moom ñu koy souhaiter un joyeux anniversaire madame Lo happy birthday à Sali Diallo c'est de la part de mbay Babacar On koy souhaiter donc un joyeux, joyeux anniversaire. Alors, demain c'est l'anniversaire de Aïssata. Aïssata Sy euh, bu direction des programmes euh, bu télévision Futur Média euh, donc euh, Aïssata Sy euh, c'est ton anniversaire demain mais nous on anticipe puisque suba yeewu leen amul on te souhaite un très très très bon anniversaire c'est de la part de ta sœur de tes sœurs sax laa war a wax mais surtout de la part de ta fille Zahra Euh, donc euh, qui euh, te fait un très très très très très gros bisou Zahra nee na yow la bëgg nee na su ko waxee nee na yow la bëgg su ko waxul yow la bëgg loolu la Zahra wax donc xale la <laughs> donc mooy c'est un joyeux anniversaire à Aïssatou Aïssatou Sy donc c'est la fille de sa de sa sœur mais daanaka doomam la moom moo ko rek daal di yar donc c'est de la part de toute la famille qui te fait un gros gros gros man nag dañ maa yóbbante ma ñëw kon jottali wax ji mais aussi c'est la part de tous tes collègues qui se trouvent Futurs euh, Médias tu es une battante une femme exceptionnelle donc on te souhaite la totale euh, la part surtout de Bouba mi nga xamante ni yéenay liggéey te mu rafetlu bu baax a baax a baax sa liggéey joyeux anniversaire Aïssatou on te fait euh, jot fii ci TFM wax naa leen actualité bi tey oblige tey la la dañuy amal plénière ci assemblée nationale di euh, Ousmane euh, Sonko euh, donc tout de suite dinañuy rek dem fekki ñoom Chérif Dia ak ñamu àndal ci seen voilà Chérif Diop Souleymane ñoom bu nekkee sax mën nañu war waxtaan ak le temps que voilà voilà mais on va on va donc euh, euh, tàggoo ak Mamoun ñu tàggu rapidement parce que waa rédaction bi ñu ngi xaar. Mm-hmm. ah di santaat yàlla bu baax rek di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo àndaloon jotaay bi yëpp lépp loo xamante ni jub nañ ko rek nañ ko jéggal waaye lépp mm-hmm. moo ma jox daal lii numéro bi nekk ci 77 032 27 tamit bu baax Fawzeyni ni mm-hmm. euh, colonel Samb ca Thiès maa ngi koy jaajëfal bu baax moo ma jox yére bu rafet bi numéro nekk ci 792 99 50 77 792 99 50 ba àjjuma jàmm incha allah. incha allah merci beaucoup euh, Mamoun Nia. merci beaucoup Dieyna di jaajëfal téléspectateurs yi di remercier bu baax a baax euh, ñi nga xamante ne ñu ngi ñu doon suivre ñoom ñëpp di souhaiter un bon anniversaire à tonton Benoît depuis France de la part de ses jumeaux Luc et Jean euh, de la part également de tata Michel bu nekk Notre-Dame. Mhm. Clinique Raja merci à vous ñoom ñëpp personnel bi docteur Sène et tout le monde mais également di remercier ki nga xamante ne mooy Jombo Sarr mooy Jombo Sarr nekk Thiès di doog a commencé mi ngi a ubbi complexe daan ne groupe Futur Média la bëgg a solal rawatina yeewu leen donc ah tey ma koy remercier mais c'est vrai c'est un peu tard <laughs> complexe Khalifa Ababacar Couture waa kaw sara mi ngi nekk ci wetu église bi euh, euh, bon pasteur Mbour 3 Thiès 77 541 45 25 di fàttali rek ni ñun moo ñu jox tey ay yére man Sophie ak Bessel merci à vous. en tout cas merci beaucoup euh, Nyatamba alors Bessel. oui Djenaba Debbo Yeso Beso John Tare Dado <laughs> kon nag euh, ñu ngi jëfal ñëpp rek di wax mbégteeg bànneex la ñu amoon daal di bokk ak yéen plateau bi uh-huh. jaajëfal nag ñaatamba ci acte bu rafet saa su ne mu koy def ki ñu uh-huh. habillé tey euh, moom moo waral kooku habillé ñu donc numéro téléphone bi di 77 541 45 25 donc rek dem leen fa tenue yi rafet yi ñu sol yëpp euh, moom moo ñu ko ñawal jaajëfal nag ki nga xamante ne moom mooy abi abi sama rakk ju baax jooju bopp bi ñëpp nee nañu rafet na uh-huh. numéro téléphone am di soixante euh, soixante euh, soixante dix euh, huit deux cent quatre vingt dix zéro un zéro donc moom tamit maa ngi koy jaajëfal lu bari bari merci beaucoup à ñaatam ci ki nga xamante ne yaa tax mu defaral ñu tenue bu yaañ bi waaw. en tout merci beaucoup donc Bessel So. So So So So. ay ca ñu tàggoo gaaw waa rédaction baa ngi xaar. ñu ngi xaar waaw jéena ba comme ni nga ko waxee rek tey nag chef grand mam laa dalaloon. Mhm. di ko jaajëfal bu baax a baax a baax. xanaa ma bàyyi ko mu tàggu rek bu paree man ma ñëwaat ci ki ñu abiyee tey. ay ca mhm. bisimilah. waaw ah, maa ngi leen di. Euh, maa ngi leen di wax merci beaucoup. Mhm. boo leen bëggee euh, commander. woote leen ci 78. 466. 40. 43 43. 43 43 waaw kontaan noonu rek euh, ci dalal la fi bu baax a baax a baax moom nag euh, adresse bi mu ngi fële ca Liberté 4 ku ko soxla rek boo demee di fa fekk su kay sama xarit bi borom teint noir boo ko fekkee dina la dalal wax la épice bu ne pour lan la jaay la ci nga dem sa kër togg ba mu baax jey na ba xanaa di souhaiter rek un joyeux anniversaire à Aïssata ak nag sama waa ki ma teree bënn pot rek taxaw ci tali bi naan raara bi raara mooy njaay jaata njaay borom maami ilimaani bu meree dee bu rusee koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yokk ko ful lépp incha allah ci barke Seydina Mouhamed yàlla daal bu ma bëggee rek na ma bàyyi ak moom. waaw <laughs> <laughs> waaw waaw. I'm giving shout out uh, United States. Mm-hmm. Zeynep and Mohamed. Mm-hmm. and uh, all Philadelphia and Pennsylvania. Mm -hmm. D'accord, maman. Merci beaucoup, Dieynaba. Happy à birthday lundi, ah. euh, monsieur Ndiaye mi nga xamante ni boobu booy booy booy booy euh, defar ay mbir mooy defar beñe bi moom mooy lakk. donc euh, vraiment merci joyeux anniversaire donc monsieur Ndiaye kooku kon borom kër ci Sophie gis nañ ñi nga téye Sophie donc happy birthday a toi. merci donc à toute l'équipe on va remercier bu baax a baax waa Ruby création pour donc la. la tenue euh, bi nga ni defar nañu ko 77 691 24 24 77 691 24 24 woo leen soxna euh, mu defaral leen ci tenue yu baax yi mais surtout remercier euh, sac de luxe by DGE foofee ca Mamel Janké kooku la ci ñun des sacs 100 pour cent cuir accessoires de qualité woo leen ko ci 77 545 23 11 donc di leen remercier bu baax baax so Eh, ki nga xamante ne nii mooy. moo la habillé nga xamante ne nii moo ñu defaral. Eh, robb yu rafet yi ba ñu macha allah eh, mooy complexe Serigne Khalifa Fall Couture ma nga fële ca Thiès Mbour 3 Dieynaba bu ngeen ko soxlaa rek mën ngeen ko woo ci 77 541 45 25 mu defaral leen robb yu daame yi rek ngeen sañse ba mu rafet Dieynaba. jeex na merci beaucoup merci donc Dianké bisous à toi et merci d'avoir assisté à l'émission merci à toute l'équipe euh, technique ci ginnaaw Apoulaye ak ñu mu àndaloon ñëpp au niveau de la régie de TF. Euh, de Yeewu Leen ak régie euh, centrale euh, Souleymane Niang ak euh, Chérif Dia Chérif Diop ñi ngi toog di xaar li nga xamante ni moom mooy édition spéciale bi ñuy amal fii ci télévision Futur Média merci et à lundi pour beneen Yeewu Leen